damay sant yàlla bu baax a baax julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sant son excellence le président de la république ci woyefam mais aussi ci xarañam parce que lii mu def nii dafa xam ni tey jii sunu gaal moom moome ci anam yëpp ndax li ñu jànkonteel jéggi na dayoo ci soxor jéggi na dayoo ci dégâts yu mun def ci réew mi rafetaay wi gis-gisam mu koy saluer bu baax décision yi nga xamee ni jël nañ ko mingoo naag décision yi nga xamee ni un chef d'État ci condition yu mel nii war na ko jël ngir askanam c'est important te doomu Sénégal bu nekk war na xam ni moom mi jiite ci bopp réew mi bu doon a sagoom laa defee lii du mos a yegg ci Sénégal waaye comme yegg si na foog ñu fàggu fegu ni ñuy fàggoo fegu ci loo xamee ni gisuñu ko te li ñu xam ne moo ñu si musal ñu bañ a dajaloo ci ay di dankalikoo ci ay mbooloo ñuy moytu di nuyoo yooyu yëpp du ay décision am xam-xam la boo xamee ne kër doctor moo ko indi digale ko ci àddina bi yëpp mesures yi mu jël ay réew yi ñu ëpp doole ëpp ñu xaalis jël nañ ko te ku xam àddina ni muy demee di nga xamee ni du benn yoon mesure boo xamee ni daf koy jël pour sàggane wala ñoñantal wala indil jafe-jafe doomu aadama yi nga xamee ni moom ak ñoom ñoo bokk réew mi mesures yi mesure jàmm la mesure salaam la mesure diine la mesure ngëm la ndax day tax bakkan yi des fi te bu bakkan yi desee ñu dund diine man sama serigne Cheikh Abdoulaye Dieye dafa daan wax ne nee na julli xewul alaaxira woor xewul alaaxira julli juma xewul alaaxira pour nga mën a def yooyu yëpp foog nga am bakkan te mesure yi moo ñuy sàmmal suñu bakkan mooy tax ñu am responsabilité pour yàgg fi lool dem juma ay yoon yoon julli ay yoon yoon woor ay yoon yoon te jàpp naa ne kuy doomu Sénégal ku nekk lii président de la république jël jël ko ngir askan wi da nga ko war a jàpp fonk ko fulaal ko yaatal ko jëfe ko jëfe ko laa wax ba nga xamee ne askan wi ak doom yi dinañ ko nangu jëfe ndax kenn bëggul ku la gën waaye ku nekk bëgg nga jur doom mu gën la kenn bëggul ku la mujje àddina waaye ku nekk bëgg nga jur doom mu mujje la àddina pour ñu mën a am loolu il faut que ñu àndandoo ci benn kàddu wax gannaaw suñu kilifa wax ñu jëfe ndigal loolu te Sénégal xaw ma ban jamono la daan am sens doon sunu gaal te jii la doon suñu gaal tigi ñu nangoo jëfe ndigal li wéy ko te sàmmonte te yëwanalante suñu biir dal di muccandoo ñun ñëpp bu amee kenn wala ñaar yoo xamee dafa bëgg a defee nu ko neexee day dal doon saafara bu jur jàngoro doon musiba boo xamee ni mën na kër tax lakk lakkaale kër njugub comme nag président jël na ay dogal nangu nañ ko jàppale nañ ko ci dogal yooyu day laaj alal gu bare bare ci réew mi laaj temps ak rela ak liggéey bu bare bare bare ngalawaay ñi nga xamee ni ñooy feggu ñi nga xamee ne ñooy taxaw nekk opérationnel nañu góorgóorlu gu alal jooju nga xamee ne doyul sax nañ ko jëfe jëfe gu rafet jëfe gu sell gannaaw bu ma salgalee nag ñi nga xam ne ñooy kër docteur yi ci seen taxawaay ak góor ak jigéen yi nga xamee ni ci ndigalu ministère de l'intérieur wala ci ndigalu ministère de la santé ñu ngi sàkk ay pexe guddi ak bëccëg ngir sàmm réew mi je pense que jafe-jafe dina am lu muy wane dina wan ne bu ñu àndandoowee jàppalante te yàlla tax suñu borom mën ñuy dimbali te yaakaar nañ ni dinañu dimbali yal na yàlla defal jàmm ak salaam ci réew mi yépp te yàlla musal ñu ci balaa bi.